علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokki jullit yi yéen ñi ànd ak ñun ci seen émission bii di Azikra ñu ngi leen di nuyu ci nuyub lislaam ñaan yàlla di nuyu bi làmboo yàlla nañu ko boole làmbalal ñun ñëpp ci barke weeru màgg wi tabaarakallahu ñu ngi leen di ndokkeelaat beneen yoon ci weeru màgg wi di weeru yërmande weeru xewal di ñaan yàlla ci mbaaxam lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci jaamu yàlla ci diggante wax ak jëf yàlla nañu ko buur yàlla nangul ci barke weeru màgg wi noonu la ñuy nuyoo it suñu mbokk yu baax yi comme ñu koy waxee saa su nekk ñu bokkal liggéey bi di ko taxawee di ñaan yàlla ñoom it yàlla taxawu leen te barkeel seen liggéey waaye barkeel seen njaboot te musal leen ci gàllankoor yi àdduna noonu lañ koy ñaan le it mboolem jullit ak foo mën a nekk rek di ñu bàyyi xel ñu la koy ñaan ñu del siwaat parce que yéen a ànd ci seen émission bii di Zikra di ci amalee ay waxtaan yu ama solo tey nag dañuy sof rek fañ yemoon démb ñi ngi woon ak yow démb ci solos jublu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak jéem koo bëgg ndax avantage yu ci nekk ñi ngi taxawoon ak yow démb ci di la wax ne la lépp yiw mu ngi ci bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye safaan ba it mu ci wan wan gannaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam man noonu nag suñ dellusiwaatee ci kàttanu yàlla danañ fas yéene ànd ak yow ci wax ak yow ci ñaari yëf mooy ana bëgg yonent boobu ñu doon wax mandarga yi koy wane yan la ak yan avantage moo ci nekk incha allahu taala tey tomb waxtaan wi loolu lay doon bëgg yonent bi alayhi am na ay mandarga mandarga yooyu nag borom xam-xam yi dañ koy lim ba boo ko boo xoolee danay xaw a yegg ci lim bu xaw a sakkan bokk na ci mandarga yooyu mbokk yi mooy fexe ba bëgg lii di sunnatu rasulullahi alayhi salaatu wasalaam li nga xam ne moom lafi fi jàngale te muy firi téere bi yàlla bi ak waxam yi nga xamante ni tabarakallahu daan na ko wax ak saxaaba mi te borom xam-xam yi ñëw yaatal ko nga fexe ba bëgg lépp loo xamante ni digle na ko ci ci wax nga koy jëfee lépp loo xam ne tere na ko nga bàyyi ko te bul ci am beneen loo ci commentaire kon dafa bokk ci mandarga yi wane bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy nga fexe ba bëgg li nga xamante ni mooy sunnaam di ko jëfe comme ni nga xam ne noonu la koy digalee noonu la koy digalee ay saxaabaam waaye noonu la koy digalee xeetam yépp moom sallallahu alayhi wa sallam waaye dafa bokk it ci màndarga yi nga xam ne mën nañoo xamee ci kim nekk ne kooku kat am na cofeel si yonent bi alayhi salaatu mooy di ko màggal màggal gi nag lu muy tekki mooy lépp loo xam ne nee nañ la waxam la nanga ko fonkee noo fonkee dox keneen koo xam ne mbindeef la waaye bokk na ci màggal mooy foo dégg turam alayhi salaatu wasalaam nga yëg ne man mi kat dégg naa sama tur soppe comme ni nga xamante ni tey boo gisee sa soppe ñi ngay bégee wala buñ la tuddalee sa soppe ñi ngay bégee noonu it nga war a bégee ci boo déggee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñuy wax di wax ci ab jaar-jaaram wala di wax nan la doon doxalee julli di wala ñu dul julli kon loolu bokk na ci mandarga yi waaye it bokk na ci mandarga yi nga xam ne ba tey mën nañ koo nattee ci comme nekk ne am na cofeel si yonent bi alayhi salaatu mooy mahabbatul quran mooy bëgg alquranul karim ndax alquran mooy lépp yonent bi ndeysaan sëriñ ba daan na wax ne alquran ak yonent bi dafa mel ni lii dafa nekk waxu yàlla lii nekk jëfu yàlla alquran mooy waxu yàlla yonent bi nag nekk jëfu yàlla kon moo tax boo bëggee alquran rek bëgg nga yonent bi nday Aïcha radiallahu anha daan nañ ko laaj yonent bi alayhi salatu wasalaam nan la melokaano mu ne kaana xulquwul quran jikkoom de moo doon alquranul karim kon nga gis ne boo xoolee alquran rek gis nga yonent bi alayhi waaye soo bëggee alquran rek bëgg nga yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye ba tey bokk na ci mbokk yi yi nga xam ne mën nañoo xamee ca kam nekk ne am na cofeel ci yonent bi mooy shawqu liqaa'ihi mooy namm daje ak yonent bi nga bëgg gis yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ku ne xam na ne nit ki su amee soppe te sopp ko lool saa su nekk dana koy namm waaye saa su nekk danay bëgg di gisa ak moom danay bëgg di toog ak moom di waxtaan ak moom yow it nag jullit bi soo demee ba yëg loolu ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamal ne am ko cofeel ci moom lool te cofeel gu kat sew taas la ndax wax naa la démb rek nee na loolu mooy li la mën a jëriñ ak sa jëf lu muy rëy rëy rëy rëy su laloo ci bëgg yant bi rek amul sens kon nga fexe ba sopp ko loolu mooy li nga xam ne moo lay jëriñ Ibn Ataillah As-Sakandari dafa wax ci téeréem boobu di xikam muy téere bu am solo tabarakallahu nee na jëf lu néew néew néew su sellee rek yàlla gërëm ko waaye jëf lu mu bëri bëri te sellul rek yàlla soxlul ko léegi nag jëf jooju nooy de pour mu la mooy nga fexe bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy tax jëf ji mën a sell wax naa ko démb boo demee ci xilaasu zahab téere bu barke boobu suñ maam Seydi Xaaji Malik radiyallahu anhu yàlla na yàlla fayal ñu ko wax na fa yi nga xam ne mooy mandarga yi nga xamante ni moom la ñuy xamee ci kum nekk ne bëgg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ومهنا لها العلامات قالوا إن أعظمها إن أعظمها استعمال سنته من جملة الإمام waaw nee na boroom xam-xam yi wax nañ ne bëgg yonent bi am na ay màndarga yooyu nag bi ci gën a màgg mooy ngay fexe ba di jëfee sunnaam si waaw te jëfee sunnaam mooy jëfee ndigalul yàlla ndax moom mooy kii firi waxu yàlla moo tax kon boo ko jëfee rek jëfee nga yëfu ndigalu yàlla sunu borom waaye bokk na ci màndarga yi mu ne wa kasratu shawqi fi luxya li sayidina min al alamati habli dakadal umma nee na bokk na ci màndarga ba tey mooy di bëri lay sopp pour daje yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu borom xam-xamee nee nañ bokk ci mandarga yi nga xam ne mooy wane ne kii kat bëgg na yàlla ak lan wa kasratu zikri salaatin summa nusrati diinihi taqalluqu ma qad jaa min di bëril looy zikar salaatu ala nabi bu mën a doon loolu bokk na ci yi wane ne yow bëgg nga yonent bi alayhi diinihi mooy dimbali ko ci diinaam ji te dimbali ko ci diinaam ji mooy ngay góorgóorlu ba lépp loo xam ne mu ngi koy digle nga koy jëfe waaye it ñi nga xam ne yàlla boole la ak ñoom nga am ci ñoom kàddu wala ñi nga xam ne déggal nañ la nga fexe ba di leen orienté di leen teg ci njàngale Yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu bokk na ci yi nga xamante ni képp koo xamante nekk na ci yow rek am nga cofeel si Yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon ma la rek ne la yii bokk na ci yi nga xam ne borom xam-xam yi wax nañ ne ñooy mandargaay yonent bi bëgg yonent bi alayhi salaatu waaye léegi bëgg yonent boobu noonu ban ban ban la la amal ban avantage moo ci nekk avantage yi nekk bëri na lool waaye bu ma soteel la ci benn rek mooy yàlla sunu borom dafa wax ne qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhbibkum allah yàlla nee na yéen jullit yi bu dee da ngeen ne bëgg ngeen yàlla toppal leen ma sama yonent su ngeen ko defee yuhbibkumullah su ngeen ko defee yàlla mu ne man ma bëgg leen kon nga gis ne pour nga am cofeel ci yàlla pour nga am ngërmande yàlla pour yàlla bëgg la da nangoo topp yonent bi alayhi wasalaam kon affaire du ci góorgóorlu rek ne man yàlla laa amal affaire du foofu waaye da ngay jaar ci yoon wi mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga jéem koo topp soo ko toppee rek yàlla bëgg la soo ko toppee yàlla bëgg la fa laysa shahnu an tuhibba allaha walakin shahnu an yuhibbaka allaha loolu la waa ji wax na affaire bi nekkul ci yow ngay jéem a bëgg yàlla mais affaire bi mooy yàlla bëgg la te yàlla pour mu bëgg la da ngay jaar ci fan la jaarloo fam la jaarloo nag mooy bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon loolu rek war naa tax ñu góorgóorlu ci bëgg yonent ndaxte jullit objectif warul nekk ñëw ci àdduna objectif ci àdduna nekkul comme ñëw réaliser lii lépp loo xamee ci mbiru àdduna lay tegu déedéet lii la yàlla soxlaal ba tax mu amal la fi mooy nga fexe am ngërëmam loolu mooy objectif bu julli fii ci àdduna mooy nga fexe am ngërmande yàlla yàlla bëgg la te loolu yëpp nag mënoo ko am te bëggoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam mënoo ko am te toppoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax yàlla sunu borom ne faaw bu ngeen bëggee ma bëgg leen toppal leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu waxaat ko ci beneen aaya ne wa atiu rasula topp leen yàlla topp yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yàlla topp googu dafa am lu ci nekk topp gi mooy soo ko toppee da nga gindeeku moo tax mu tagg ko ci suuratu nuur nga xam ne mooy firi atiyon allaha wa atiyon rasula yi ñëw ne bu ngeen ko toppee rek gindeeku te ku gindeeku rek am ngërëmal yàlla ku gindeeku rek jubóog sa borom te loolu rek jullit loolu moo war a nekk objectif am fii ci àdduna maanaam julit lan moo war a def maanaam lan lan lan la war a sàkk fii ci àdduna mooy fexe ba am ngërmande yàlla parce que amoo leneen lu ëpp ngërmande yàlla ngërmande yàlla lépp ci àdduna ci àllaaxira ci wa ridwaanu min allahi akbar te loolu nag pour nga am ko da ngay nangoo topp yonent moo tax mu ko ne ko wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko toppee rek moom alayhi salaatu wasalaam dangeen ngeen mën a gindeeku kon bokk na ci avantage yi mu la mën a jural moom bëgg yonent bi mooy nga gindeeku tegu ci yoonu siraatal mustaqim te yow boo xëyee suba ba ngoon loolu ngay ñaan ihdina siraatal mustaqim ihdina siraatal mustaqim loolu ngay ñaan yow jullit bi ñaanoo fa wërsëg parce que loolu yàlla moo la ko garantal waaw yàlla moo la ko garantal wërsëg ak lépp lu ci aju rek yàlla garantal na la ko kon yow lu la war rek ci àdduna mooy nga fexe ba nooy góorgóorlu tegu ci yoonu siraatal mustaqim te loolu nag yoon mooy nga bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax ndeysaan Ibnu Ataillah Al-Zakandari moom dafa waxaat ci téere boobu may wax léegi alhikam ne ijtihaaduka fi ma dumina laka wa taqsiruka fi ma tuliba minka wala fi ma talaba minka dalilun ala intimaati al-basir waaw saa yoo di dang-dang di def effort ci li nga xam ne yow warlu nañ la ko pare déjà waaye dangay ngay tayal nag ci li nga xam ne yàlla da ko sàkku ci yow dina defal ma ko te yooyu mooy lan mooy lu aju ci wàllu àdduna sa wërsëg looy dundee lépp yàlla garanti na ko pare ne di nga ko am wax na ko ci hadiis nit ki mënul fee jugee lu ba dana am lépp lu yàlla dogaloon ci moom ne dana ko am waaye loolu yàlla dana ko garantil ba pare léegi nag nee na damaa bëgg nga may jaamu te jaamu la pour yow léegi nag nee na saa yooyu góorgóorlu ci li nga na ne te yàlla warlul na la ko waaye di tayal ci li nga xam ne yàlla nga koy sàkku ci yow loolu dafay tegtale na yow sa basira dafa dafa dafa dafa faible sa gis-gisu xol dafa faible kon nañ bàyyiwaat xel ci loolu kon bokk na ci avantage yi la mën a jural mooy bëgg yonent bi day tax sa jëf yàlla sellal ko waaye dana sellal sa xol sellal sa ruux te kat doomu aadama xolam mooy nit xolam mooy moom sa moo tax nga exister te yàlla loolu la soxla man yansural xuluba wa saraira duna alladi yakunu minna zahira comme lu ko mam borom Tuubaa waxee ci Masaalikul ko nee na yàlla li si biir lay xool ka moom lay gën a xool ka li nga xam ne yaa ngi koy feeñal kon nañ bàyyi xel ci loolu ba tey bokk na ci avantage yi la mën a jural mooy aljana moo tax maam Maodo Malick wax ca buntu ba xam naa loolu la ñuy tëjee ne yaa man yuridu jinaanal xuldi yaskunaha wa qadiman talabal miftax toxtaral yaa mi nga xam ne bëgg nga aljana def sax dàkk nee na fexeel jiital ut caabi ji nga xam ne moo lay jox ëllëg sa saal bi nga war a jëm ci aljana ca caabi janam mooy nga bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon yàlla nañu yàlla defal bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu sax suñ xol ba keroog ñu fi jógee waaye defal ko suñ njaboot defal ko képp kuy jullit in uridu al islam mastataatu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu